Khadim mhm. en tant que champion bu toll ni yow est que war nga ñu takkal le micro nga ne Sa nekk nawle Reug Reug Reug nekk nawle Sa Thiès la preuve Sa daan naa ki nga xamante ne moom mooy Reug Reug nga ne bu fekkee ne bu euh, pas ci kayit normal euh, nga ne da ngay da ngay lekk xaj mais heureusement lekk mu ko ndax Reug Reug moo toog ci ko <laughs> déet déet wax leen ma Reug Reug moo toog ci kaw ah ah xam nga fekk yow moom milieu la moom ci la nekkoon moom gis nga ko léegi. xam naa ma gisee sax dama doon xàmmeetu la nekkoon xaw ma état bi <laughs> boo ci ba ay jafe-jafe ak ay ay ay ay kii gis nga ministre bi ministre bi. yow gëm-gëm moo tax nga da gëm am sa gëm sa mbër. xam mbër qualité yu mu nekk ci moom force bi nekk ci moom. ak yéen ñii yéen ñii journaliste yi yéen ñii journaliste yi yàgg reporté. Hmm. yéen a gën a xam ni car macha allah bu ko yàlla la fa lay cat champion la. yéen xam ngeen ci loolu